Sénégal mu ngi créé na am commission nationale de culture, commission ba ñu ngi liggéey liggéey bu am solo ci lépp loo xamante bi ne lu jëm ci xeex attaques yi nga xamante bi ne chaque jour ñu gis ko gis ngeen léegi nii expert bi ñuy désigné wax na que ne Sénégal mooy 71e pays bi nga xamante bi ne ci en terme d'attaque, attaque ci àdduna ñu ngi koy constaté nañu ci Afrique moom nous sommes cinquième bu fekkee ne yëngu leen dara lu yëngu kon kon ngeen xam ne am na riposte ndax ba tey jii nii am na lu bëri loo xam ne yéen yëgu leen ko waaye ci suuf nit ñaa ngi liggéey nit ñaa ngi damat pour loolu bañ a yegsi ci ci ci ci population bi. bu ngeen seetloo banque yi muy banque yi muy entreprise yi ñëpp ñu ngi ci système bi ba nga xamante bi ni Sénégal actuellement ni am na xam-xam bi am nañu xarañte bi am nañu jumtukaay yi ba nga xam ne léegi nii lépp lu xew mun nañ ko mun lépp xam nañ ràññee nañ que loo xamante bi ne la dañ ci war a taxaw baax a baax taxaw ci xool lu ñuy def ba nga xamante bi ne gis nañu ne li xew Sénégal ak li xew ci àdduna bi lépp ci internet lañ koy defee crime yeeg maanaam jëf-jëf yu ñaaw yi li nga xamante bi ne kenn mënu koo tudd ci sax lépp ñu ngi koy def ci internet donc état du Sénégal taxaw na tem ngir xeex li mu njëkk def mooy defar li ñuy wax stratégie

تاول تخول تخول تخول نيني سيبر كيمنيل تامي تخاو دافا تاخ مو غنا يوك نداخ غيس نانيو ني انترنت بي دوتيليزاسيون بي دافا غنا يوك سانك ما نغوخ سما ديسكور ني سينيغال تو دو بينتراسيون انترنت بي ييغ نكو خاميتي بي ني ليغي اوب نو بلو دو 83% مانام كون نيغي في اندي دانيو بوغ خامغا اوكتوبر موي سي ادنا بي وير لا بو خاميتي بي ني دنج كو جيغليل مانام دي دي دي واخ نيت ني ليغا خاميتي بي ني مو سيبر سيكوريتي donc Sénégal tamit chaque octobre il jël weer bi consacré ko ci sensibilisation ndax gis nañ ni lépp lu ñu mën a ci stratégie de sensibiliser les nit ñi surtout xale yi ak jigéen ñi nga gën utiliser internet du jëriñ dara il faut que nous sensibiliser les yi ndax gis vu que les yi tamit Sénégal euh, dañuy utiliser internet à outrance Ils ko utiliser bu baax a baax a baax nit ñi da ngay nekk sa kër doo xam sa xale lu def ci internet lu muy def ci ordinateur def nañ benn programme mu tuddee la protection des enfants en ligne programme la boo xam ne bi mu ngi actuel ba légui programme la boo xam chaque fois ça day permettre état bi mu xam fan la yifi fi toll mu xam muy muy récupérer li nga xam bi ni ay nit koy def ci lu bon ndax ñu ngi dénoncer à travers le ministère de la justice ministère suñu ministère bi nga xam ne ni mooy maître mais également ministère de la famille et des et de la femme ñu def liggéey bu rafet donc loolu lepp état ci ci mbirum état à part loolu donc sensibilisation bi da fay jëm waxuma rek ci xalé yi jigéen yi ak ak ak xale yi mais ci mag ñi ak ñi nga xamante bi ni mooy entreprise yi ak ñi nga xamante bi ni moom mooy euh, tout simplement le citoyen ndax tant que nit ñi dénoncé wuñu yenn actes yi tant que nit ñi xamuñu ne bu ñu utiliser seen portable lu ne mun na leen ci fekk euh, yaakaar na ni quel que soit le dispositif bu ñu état mën a mettre en place nit ñi duñ ko duñu duñu duñu mën a du mën a nekk lu applicable du mën a nekk lu efficace donc moo tax weer bii weeru octobre bi ñu jagleel ko ngir sensibiliser population